waa dikk jàppoon ko fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bee ñu weesu ci buntu direction bu impôt ak domaine gannaaw bu ñu ko dégluwee ñu daal di teg Bassirou Diomaye Faye ci mandat de dépôt li ñu ko doon toppe nag mooy def li nga xam ne ni mën naa nasaxal jàmm réew mi tooñ ay magistrat ak waxal ay corps constitué li nga xam ne ni du dëkk gannaaw bi nga xam ne ni def na ab publication ci page Facebook am di wax ci yenn ci magistrat yi mu doonoon ñett mbir yi nga xam ne ni moom lañ ko doon toppee waaye dossier bu numéro 2 bu PASTEF bi juge Maham Diallo daal di cay yokk yeneen ni tuuma ni Ousmane Sonko juge bi daal di dolli ci ab dossier mam li ci mel ni yee fitna lëkkaloo ak ay defkat lu ñaaw ñu ñuy woowee terroriste ak yeneen ni tuuma bi ñu ko tegee nag mandat di dépôt ba léegi ay avocat di def seen kentulaay kàttan ngir mu jot ci liberté provisoire mu di ab mesure bi nga xam ne ni article L130 bu code de procédure pénale moo ko jagleel képp ki nga xam ne ni teg nañ la daan ñu jàpp la wala ñu teg rek ay tuuma ci sa kaw te mën nga koo ñaan ak fu ñu mënta toll ci procédure bi gannaaw bi nga xam ne ni conseil constitutionnel dëggal na bokk jomaay fay ci jongante falum jiitum réew bu atum 2024 ku ne di laaj ana nan lay def ngir bokk ci campagne gi wala am tendante ni yeneen candidat yi loolu tax bay avocat dugalaat beneen demande waaye ba tey juge d'instruction bi nangu leen koo jox ñu war a door lu yàggul dara campagne bi ngir candidat dem taataan baatu askan wi candidat bu coalition Diomaye président mën naa it jafandiku ci code électoral te dem kalaame ji cour d'appel ngir ñu respecter lu ñuy woowee principe d'égalité bi nga xam ne ni code électoral moo ko jagleel candidat yi ci article L 130 am